Edmo Flow la taxawal sound bu mu def day def it Edmo gars yi ñi nga xaar album. léegi rek album bi 2020 incha allah ñu may leen album bu dope incha allah et après ñu jàll ci yeneen détails. Edmo lu tax muy tàmm di def ay cover gars yi dañ lay loolu. gars li ñuy reproché xamuñu ko parce que bu dama def cover man remix laay def te ñaari yoon laay def remix yoo xamante ni si gars yi mën ko coow. et remix ci la bokk parce que Akon day def remix Justin Bieber day def remix ñi ma lay ñëwal nii ñi ma leen limal nii lu ma leen fenn ay artistes yu mag lañ te dañ koy def Sénégal ñoo war ubbeeku ubbi seen xel yi xam ni remix reconnaissance la da ngay reconnaître musique nit ni neex la nga remix ko dara newu ci noonu lañ mën a jëlee ay son Sénégal remix ko mais boo ko defee ñu ne la da ngay sàcc wala yu kenn xamul yooyu yëpp am na lu ko gën mooy gars yi xool ndax est ce que Libro Mix am na qualité est ce que neex na parce que ñi ne ci àdduna bi loolu la ñu xool donc il faut pas que ñun ñu bloqué suñu bopp baaxul. mais Edmo lu tax duñ la gis ngay teg ay événement sama album laa nekkoon di liggéey pare naa ko incha allah dañ buñ ko génnee dinañ def des milliers d' événements fait le tour du Sénégal je l'ai refait j'ai fait pas mal de concerts euh, entre temps j'avais fait un petit break nekk di job sama li may job su may ñëwaatee bu soobee yàlla nañ gis lu doy waar kon 2020 mun nañu xaar album. Edmo ngeen di xaar mais Edmo gars yi naan Edmo day viré si mbalax lu ma def neex lu ma lu lu ma neex laay def man. jaajëf man lu ma neex laay def la. man tënku ma sama bopp di su ma neexee mbalax. ku mu neex da ngay déglu bu la neexul bul déglu. et la du a la du et moo. dafa ni mi lu tax classe boobu nga jëm ko nit dof. non déedéet classe wu classe wu nit dof de. sa tournée at ba may def sama son. nit dof dafa guñ son ma ak moom. comme naa ne mais après nga ko génne. non génn na avant sax mooy def ak nit dof mais clip bi moo génn après gars yi naan non boobu fekk na son bi génn bu yàgg. mais classe woon nit dof. non même pas. <laughs> nit dof gars la am na solo. jaajëf jaajëf.